Lazare dafa feebaroon feebar bu metti balaa Yeesu egsi Lazare deewoon na ba pare mag jigéen di Lazare danu amoon nakar ak tiis Matt ne ko borom bi boo fi newoon Lazare du dee waaye gëm naa lépp loo ñaan yàlla dina la ko may Yeesu ne ko maay dekkitali maay dund wi képp ku gëm ci man boo deewee sax di nga dund Yeesu daan na Mari ak Matt fan ngeen denc Lazare Mari taaru wax Yeesu borom bi mu ngi xañ xun ñeenti fan a ngi nu daal di noonu yeesu yeesu di bàmmeel mu daal di na dindi leen xeet bi kaw loolu mu yuux Lasaar génnal noonu la saa dekki daal génn sa bàmmeel ñépp ñu fa newoon seede daldi gëm